noonu lay euh, demee tous les dimanches yaa ngi am euh, ok noonu lay euh, demee comme ni mu leen ko waxee muy couleur urbaine bon nañ actualité la comme coronavirus bi mi ngi lëmbee jamono ji mi ngi mi ngi faat mi ngi faat ñu bëri moo tax mu bëri ñu leen wax ñu toog seen kër on essaie de sensibiliser la population ok parce que c'est grave c'est grave ok noonu lay demee am na ay quelques éléments yu nga xam ni leen nañ ko léegi dañ leen di tegal éléments yooyu noonu. pour euh, ñu gën a sensibiliser nit ñi ah, parce que ñu xam que ni euh, coronavirus du fo du fo ñu bëri peut-être ba léegi dañu amul assez d'information parce que boo génnee à travers le monde gis nañ ñi ñi muy rey kon yàlla dimbali nañu ba euh, Sénégal peut-être cas yi bëreegul noonu mais plus de vigilance moo tax nit ñi ñu leen wax ñu toog seen kër ah. parents yi nañ gën a surveiller seen i doom ñu téye leen noonu lay demee parce que tamit je crois que jàngoro bi nit ñi ñoo koy yóbbu àndaaleeg moom looloo tax mën nga contaminer ñeneen ñi moo tax ñu leen wax pour ngeen euh, toog seen kër donc looloo tax ñuy gën di euh, sensibiliser à travers les euh, médias noonu lay demee ci kanam tuuti. naa leen indil benn ndaanaan bu nga xam ne mi ngi dëkk ci euh, Ngaye Mekhe mi ngi tudd Malicoumba dafa génn benn single bu bees euh, mi ngi tudd coronavirus looloo waral tey ma invité ko euh, ci Ngaye FM ci couleur urbaine noo lay demee léegi en attendant bi di daw ñu bàyyi éléments yi xam ne jot nañ ko dajalee noonu lay demee tout au long de la semaine dañuy dajalee éléments yi nga xam ni pour ñu mën a sensibiliser population bi ah si danger boobu nga xam ne mooy feebar boobu noonu muy coronavirus loolu tax ñu leen wax pour ñu toog seen kër motu motukaay yi nga xam ne tam tout le temps ñu koy euh, jàllale ci euh, rajo bi ak euh, télé bi nit ñi nañ ko jëfee ñu xam que ni du foofu policiers yi ñu ngi génn def couvre-feu juste tamit noonu demee léegi ñu déglu éléments yi Adja. di daw yéen ay lâche ngeen vraiment yéen bëggoo leen seen réew te doo leen ay nit yu baax parce que aussi. 93.5 FM. mu nekk xaalis bu bëri bu nit ñi di ñàkk commerçant yi liggéeyatuñ nit ñi tukkeetuñ borom transport yi ñak sen euh, sen xaalis ñu doon par jour nit ñepp di ñak am ñu teud hôpital ñi ragal ne ndax dañuy dé sen mbokk yi fanaan nuñ ñi nekk italien ñu tëj leen ci ay kër kenn mënul genn il faut vraiment être un lâche pour pour instant bi ñepp di def ay effort pour que suñu rew mucc yeen ay bande boy yu ndaw genn ci mbéd yi te nag moi je suis contre yeen gars ñu doxale dem di dóor nit ñi parce que loolu mo exciter nit ñi tay pour ñu gennal parce que société bu juk ko ci amul il faut mu am ay ay ay lâche yu ci nekk donc violence au démb c'était prévisible que dina d'autres gens envie de jouer À mon nom, ñu devons professionnellement gérer le problème di parce que démb ñu bëri yëguñu ko Ni dañ doon d'og. mais bon suñu ñëwoon teel leen yëgal à partir de maintenant demee na ni naana nous nous. du demee nous ñoom envie Bob non. donc c'est une faute malgré que c'est liggéey lañ j'ai beaucoup de respect pour nous. parfois aussi duñ d'accord ak ci seen ay méthodes c'est pas un manque de respect on les critique pas peut-être qu'on les critique mais on n'essaie pas de les de les mettre en mal mais nu ñu dawali demb tey jii mu excité yenn booy mais booy yooyu mu excité booy yooyu mu excité c'est des lâches te booy du ñu ay nit yu baax bu ñu bëgguñu seen réew te benn faram naa booy yooyu noonu seen ay waajur war nañu rus ci ñoom parce que aussi ñëpp ngi toog di jéem a gérer ak seen i parent yéen yenn parents yi ngeen bàyyi seen ay doom ñu génn maa ngi jéem a tenir benn langage bu correct ñu génn di di effort yi nit ñi di def instant bi am na ñu tëdd seen hôpitaux am seen is fucked up man nañ ko teg si code man kenn bëggul ñuy dóor ay nit dépp tey tey ñëpp xëy daal di am lu leen metti parce que bëgguñu loolu ñuy jàpp ay nit di leen dóor nit bëgguñu ñu leen di toroxal parce que démb am ñoo xam seen liggéey la ñuy jógee ñeneen ñi faneen donc c'est un truc boo xam ni bëgguñoo di ñëw rek di jàpp nit ñi di dóor but il faut ngeen come on man fucked up man pour protéger sénégal yi protéger askan bi parce que ñaan ñu ko yàlla feebar bi bu demee ba bëri fi doole faal dina compliqué quoi tey gis ngeen activité yëpp taxaw na booy yi jàngeetuñu

bu faites ni nag état bi mi ngi fexe di jël ay initiative pour xol nan lañ mëna def pour pour pour freiner maladie bi pour freiner virus bi ñun ñëpp ñoko ci wara jappalé parce que après bu virus bi freiner wé ba yalla jëlé ko fi peut-être d'ici un mois deux mois dinañ mën reprendre suñu activité même bu féké sax dina compliqué parce que réew bu tok ben wér wala ben semaine sax activité amul daf koy affecter économiquement parlant comme on dit waxuma la ak réew bu nar toog un mois ba deux mois jàpp trois mois ndax li cas di gën a di gën a di gën a di gën a jël ampleur ñuy gën a am risque di bañ a nekk ci suñu ay activité ngir yàlla de grâce dama koy ñaanaat encore une fois sénégalais wala képp koo xamante ni peut-être voilà ngaa ko blende dina wax nga bàyyi ko xel wala nga dégg ko nañ gën a toog nañ gën a toog mettre suñu bopp en confinement ni ñu koy waxee toog suñu kër yi parce que feebar boo xamante ni xamoo ku muy dal bàyyiwul mag bàyyiwul xale bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen bàyyiwul kenn et fu nekk la lu mun di dalee te bu la dalee bu lay dalee noonu lay wàlluwaatee nit à la bu la dalee nga nuyu nit wala nga saafante ak nit mun na dal nit kooku donc ngir yàlla ak yonent bi nañu toog suñu kër yi nañu moytu néew yi lambi suuf yi nañ toog na ku nekk jéem a protéger boppam ba pare protéger réew mi protéger Sénégal parce que tey Chine ak nu mu toll France ak nu ñu toll Italie ak nu ñu toll tey voilà États-Unis ak nu ñu toll bu demee ba feebar bi jaaxal leen ñun Sénégal bu ñu demee ba feebar bi dugg fii nii saa yi dina compliqué ñun ñu ngi naan chiffre bi ñuy joxe mooy chiffre exact ñu ngi chiffre bi ñuy joxe dépassé na mais bon anyway mën na quoi mais que chiffres yi am amul dépassé na ko dépassé ñaan mooy protéger sa bopp protéger sa mbokk ba nga xamante ni euh, euh, d'ici un mois wala deux mois Je ne feebar bi amatul Sénégal parce que Chine xeex nañ ko am suis que ak deux mois wala au moins un mois un mois demi février bi mën na fa jaar ci bon ci yaakaar yaakaar parce que cas évolution cas yi di joro dal mi ngi leen di dal ñii ñu ngi leen di traité ñii di wér ñii di dee mais ñum dalagul am na yaakaar ni dootu leen dal ñaan lañ yàlla Sénégal egg foofu et puis imaginez leen quelque chose xoolal Sénégal waxuma la bu situation yu mel ni amul Sénégal ñaata hôpital yu mag ñoo nekk si si temps bi bëriwul tey foofu boo waxee Dakar wax hôpital principal wax Dantec boo waxee boo ci tegee dalal jàmm xam doo ci tegaat hôpital yu bëri te médecins yi yàgg nañ am ay problème y am ay difficulté si domaine sanitaire bi a am ay ay difficulté man en personne dund man bi may sama problème yi hôpital gars war ma defal opération nañ ba ma anesthésie donc médecin Sénégal réew muy souffre noonu bu ñu ba am genre situation yi nii la nit ñi jëm de grâce nous nous suñu ba nous quoi luñ mën toog ñu toog ko luñ moytu ko ñu moytu yi moytu place yu di dajaloo yi fu bëri nit yi bërki dem damay jaax si plage bi nga gis booy jànge wuñu voilà. noonu lay demee boo leen gisee lu tax ñu teg éléments yooyu c'était juste euh, pour ñu gën a euh, population parce que euh, du doy du doy noonu lay demee comme ni mu leen ko waxee sànq Malick Coumba moo doon sama invité dafa gën a benn single bu bees. bon mi ñuy wax ci euh, coronavirus tamit artiste la tamit parce que bu naan artiste je crois que rôle mooy euh, sensibiliser population bi ah. ok euh, noonu lay demee léegi comme ni nga koy waxee tamit bon bëgg naa tamit mu ubbi micro mu waxtaan ak ñun bon mu waxtaan ak ñun si single boobu nga xam ni génne na ko Euh, xool naa vidéo bi tamit parce que bon wax na si l' essentiel wax na si l' essentiel mais nag euh, fi muy gënee am naissance comme que moom mi ngi ni euh, toog sama plateau parce que je crois bi mooy sama première émission ak moom tamit ma gën a leeral lu tax ma invité ko mooy dafa génne benn single bu am sens tamit mu def ko vidéo tamit je crois que ñu ñoom exclusivité bi parce que bi mu génnee bi mu génnee yàggul noonu mais gis nañ que ni mi ngi bon cofeelam ak bëgg réeram ak patriotisme moo tax euh, mu génnee single euh, boobu noonu léegi euh, dañ koy bàyyi mu waxtaan ak ñun mu mu mu présenté wu si ñi nga xam ni xamuñu ko parce que tamit ngaay la dëkk tamit mais du du ngaay rek parce que tamit voyagé na à l' tamit noonu la demee mais incha allah dinañ wax parcours am yóbbu micro am ñu bàyyi ko mu waxtaan ak ñun. waaw salaamaaleykum DJ Taf ñu ngi ah, di nuyu bépp doomu ngaay di nuyu bépp doomu Sénégal. waaw ah, di nuyu bépp doomu Afrique di nuyu àdduna yëpp. Hmm. ndax tey li ñu fi dajale ku ne xam na lu mu doon. loolu mooy feebar bi nga xam ni si wër na àdduna. Hmm. yàlla dogal it mu doon loo xam ne si tey ci hmm. jamono mu ngi yëngal fépp te doon na rangooñu àdduna bi yëpp. fi mu toll nii te ñun àdduna yëpp ñu jug pour rangooñ yooyu fer. mu doon loo xam ni képp koo xam ne si nekk nga ci tey doomu réew mi. war ngaa jug pour sensibiliser. def loo xam ne si acte bu tax la ñi xamul lu mu doon ñu jéem ko xam. Hmm. loolu moo tax Malicoumba Seck bu dëkkee fii ci Ngaye di artiste ñu xam ko mu doon artiste boo xam ne yamul ci ngaay au niveau du national xam nañ ko mu jóge fi dem ar Europe def fa parcours bu mag. Hmm. joué fa ci scénario yu bari ba dellusiwaat fii ci Ngaye. Hmm. yàlla dogal Sénégal lii di dal ci suñ kaw dal ci suñ kaw dal ci Afrique dal ci àdduna yépp kon Malicoumba Seck dafa war a jug jox loxoom àdduna jox loxoom Afrique jox loxoom ngaay yi jox loxoom Sénégal hmm. loolu moo waral tey jii ma jël singal bii def ko singal bii nag ñu ngi ciy sant yàlla parce que soo gisee man la ñu ngi ciy sant yàlla mooy Malicoumba Seck yàlla dogal na artiste la boo xam ne sax xëy na aw turam tolluwul tey fi single bi toll ci réew mi hmm. waaye maanaam am solo gum am solo moo waral tey jii ñëpp bàyyi ko xel ba rajo bu jàpp ci Sénégal dégg ko nit ñi di ko bàyyi xel bu baax ba mu nga contact yi bari ci lool kon tey jii nag fii ñu dëkk ci ngaay bu fekkee que ni yow am na nga woonu contacté nu pour ñu ñëw ngir sensibiliser ci dëkk bi nga xam ne fi la ñu dëkk loolu day doon loo xam ne si suñu mbégte lay doon. Mm. ma ànd ceeg nag sama soxna Marème Seye Ndiaye. Mm. defe naa ni ñoo bokk liggéey bi moom. fii ci mm. Sénégal. waaye ñoo ko bokk Europe man ak moom di ko liggéey. tey loolu leer na képp koo xam ne fan su ba Seck nga wala ngay fan su Marème Seye Ndiaye. ñun nag suñu groupe étoile Baye Fall lañ koy wax. yàlla dogal na mi ngi bëgg a law ci àdduna ndax tey scénario yu bari yéeg nañ fa waaye nag ñu ngi kontaan ci sa invitation di kontaan ci émission bi di bëgg ñëpp tey ñaan yàlla lii nga xam ne dugg na fi di balaa yàlla jëlee ko fi ci nu mu gën a gaawee. Mm. jërëjëf. waaw dañuy bàyyi tamit euh, sa soxna euh, bi nga àndal tamit bon mu wax tuuti parce que tamit euh, gis nañ que ni yéen ñaar am ngeen maanaam am ngeen benn nan laa ko nan nan laa ko mën a waxee gis naa que ni yéen ñaar jubóo ngeen de telle sorte que tamit day feeñ si clip yi tamit noonu la moo waral tamit comme par exemple Malicoumba jëlul keneen woy ak moom wala nan la fa demee yéen ñaar ba ngeen def benn kii bloc ngeen di woy nan la fa demee. waa assalamualaikum DJ ma ngi len di ziaré di wa nuyu yeen ñepp wa di sant yalla mi nga xamanteni monu may katan ak doole mhm. ba mëna tok fi toog sant yonentem bu tedd ba wajur touba khadim rasoul a ah, sunu ñaari wajur a ah, di sant sama borom kër bi tok malikum ba sek ma ngoy sant bu baaxa baax wa DJ loolu nga wax rek comme li li mi ci la bëgg ubbi ba pare. Mhm. gannaaw mo waral émission bi suma paré nak sa laaj bi intéressé na ma dina la ci tontu bu baax waa di ñaanal ñépp ndax euh, bi affaire bi amee rek euh, taw dafa di inspiré wu euh, ndax bu fekkente ni da ngay bëggal nit ñi ci yeneen fànna hmm. tey bu dëkk bi demee ba am jafe-jafe it loolu it war nga cee mën a taxaw di artiste xar sa tànk tubéy dama yeewu rek mu am naa lu ma dama bëgg ñu dugg studio way ci coronavirus bi pour képp kuy doomu Sénégal képp kuy doomu àdduna. ñu mhm. mën ci def suñu wàll. loolu moo ko waral boo gisee complicité bi tamit li ko waral mooy man bi ma nekkee xale bi ma 15 ans. Mhm. ci la ma takk. ah boobu ba léegi daanaka suñu taaw am 22 ans. kon de mhm. nga ni loolu du benn fan du ñaari fan. ñu judd ci dëkk bu mag muy Louga. Euh, comme ni mu koy waxee moom yaayam ngaay la dëkk mais papaam Louga la dëkk. Mbol Seck. man alaaj dembe je ndjay jur ma hmm. ñun ñaar ñuy ñaari ndaanaan ànd hmm. wa muy ànd bu neex nag boo xamante ni sii ni ah, kenn ku ci ne boo xoolee sa morom mu xam li ko wax kon loolu sant yàlla la hmm. yàlla nag mooy boole moo ñu boole may ñaan yàlla yàlla na ànd bi sax ma ba suñuy doom ak suñuy sët ak macha allah di ko di ko fekke ci barke seydina mohammed jërëjëf waaw léegi dama bëggoon tamit nga introduire tuuti ci euh, coronavirus bi parce que gis nga ni que actualité la mi ngi lëmbee jamono tax na ba nit ñi tamit euh, am na ñu bëri ñoo xam ne tam ñu woon toog seen kër. mais dañu obligé ñu toog seen kër yow loolu nan nga ko jàngate waa ni ma ko jàngate mooy lu metti la mais tamit euh, loo xam ni la kenn ku ci ne boo xoolee da nga naan man la arrangé. ndax bu ko président wootee ministre bi woote ko. kenn ku ci ne du war nga koo woote yow ci sa bopp mm-hmm. ndax toogal sa kër pour bañ jël jàngoro mm-hmm. loolu defe naa ni kenn ku ci ne war nga koo rafetlu mm-hmm. waa di ñaan yàlla nag ñoom it yàlla na leen si yàlla suñ borom defal ndam parce que am na yu bari yu fi jaaroon te yàlla daf ko fiy teggi kon nag ñu nit ñi ngi rafet njortu ni yàlla dana ko teggi ndax sénégal am na ay mag yu baax yu fi nekk ku mel ne sëriñ yoo xamante ni ñi ngi fi ku mel ne maam Alaaji Malick ak mag ñu bari ñoo xam ne def nañ fi ñaan yoo xam ni hmm. ñi ngi rafet njort xëy na corona bi dugg si na suñu réew mais li mu def bitim réew defagu ko fii te ñaanuñu yàlla mu def ko fi. Hmm. kon nag ñi ngi ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla yemale. Hmm. si àddina bi yépp ñim jot dal yàlla may leen wér. Hmm. ñim dalagul yàlla lay dégg seen cër. ah yàlla tegg ko fi. loolu daal la ñuy ñaan saa suñu yewoo ah jigéen ñi nag ñi ngi wax ni ñoom ni ni ñu def nii seen jëkkër yi gis nañ leen seen kër yi. loolu tamit ñi ngi koy rafetlu mais tamit. yàlla baax na daal. Mm. ndax xam nga lu dikk rek kenn ko ci ne di nga ci am looy noo koy interpréter. Mm. ok ok dafa comme nous mu leen ko waxoon euh, invité tey ci euh, couleur urbaine dafa single bu bees tax euh, single bi mi ngi ko tuddee moom wax ni sensibilisation la ci feebar boobu ñu coronavirus muy single bu tax tamit je crois wareefam la def en tant que artiste sensibiliser nit dañuy déglu son bi dama jox son bi ñu ñu déglu ko couleur urbaine sensibiliser. képp kuy doomu réew mi ci feebar bi nga xam ne sawul di coronavirus fagaru leen fagaru na coronavirus bi doon jox yegg si na legal. Senegal vô lô ci benn bee jiital duniyaa mën nañ koo daan ci bu ñu booloo korona génn fii mën nañ koo daan li xalifa Tuubaa def ànd ak xalifa war na kuy doomi réew mi no kuy mi reunión. jàpp fa nga ne sportif yi teew nanu mu génn fii gëm naa bu ñu booloo day génn joxuma la loxo nga defal ni dama la xeeb feebar bee ko laaj

te bokk xeex ko mu gën fi ok dafa leer dafa leer dafa leer euh, parce que ok. Hmm. ok noonu la noonu la euh, dafa leer parce que boo dégloo kàddu yi yaa ngi woote foofu noonu ñu bennoo euh, bennoo mooy tax ñu gën a am doole pour ñu mën a xeex corona virus bi mais tam gis naa comme style style de musique bi nga def tamit jëloo comme par exemple nga def rythme yu kii noonu mais da nga jël wóolu musique. world music nga jël euh, sound boo ko déglu baax world music saa veut dire que euh, expérience bi ak euh, yooyu yëpp moo la ko may mais tamit question bi mu la bëggoon laaj mooy inspiration bi nan la nan la nan la la dikkalee tamit ak temps bi mu la jël ak enregistrement bi ak yooyu nan la fa demee. xam nga DJ hmm. am na loo xam ni bu waxantee dëgg te dëgg neex yàlla. Hmm. day mbir moo xam ni ton la ci doomu aadama. Hmm. mooy comme li ma wax rek bërki démb ndooy baan parce que ku gis ni fan yi yëpp hmm. ay émission ci sumay morceau la koy euh, condité hmm. te it bërki démb la ma woo di ma wax ne ma Malick ma ne ko ma ba pare hmm. damaa déglu ñëpp waaye li ma yow xam sax yow sa morceau moo ci wàllu musique ci wàllu technique ci wàllu parole loolu yéem ma ko ko ni ko loolu li ko waral mooy yàlla dafa dogal Malick Coumba Seck Euh, pourtant bu ma nee suma musique maa koy arrangé. ñu mhm. bari da leen di yéem. Mhm. mooy wëlbatiku it ni suma musique percussion li ngay dégg noonu. lépp mhm. maa ko tëgg sama loxo bopp. man maa ko tëgg donc fii laa bëgg ne fi ñu doog fay sama jabar xam na ni damay dem woy ba pare. woy teg li mu war a teg yépp dugal ay këram moom mu ñëw ma ne ko déglu ma ne ko woyal ma fii. mu ma am loolu nag mbiru suñu borom la. maa ne ko parce que dafa am benn concept boo xam ne daf ci nekk. Hmm. loolu mooy man damaa gis ni musique sénégalais tey hmm. dafa am fu mu war a jóge am fu mu war a dem hmm. ngëm-ngëm boobu nag mënoo ko am mukk fii ak génnoo nga dugg Europe parce que ñoom gëmuñu nga bind morceau ba pare ñu di la laaj naan luy morceau bi nga naan leen na loxo yi jug ak na tànk yi taxaw xam nga ñoom luñ gëm lii laa bind loolu di tem mën a jariñ société bi tamaali ko ko sekk foofu la gis foofu lay bind ba lépp lu mu bind. Mhm. ci noonu la mel. Mhm. morceau bi ma njëkk a génne single Africa la tudd. Mhm. bi ci topp Sénégal la tudd Africa maa ngi ciy wax naan woo oh, children's Africa best way. dama bëgg xale yi Afrique sànni fetal yi. te delloo ak jàngi école ndax fi ma leen bëgg seen mooy yoon wi gën te yoon wi gën jàng ko mën a def ci ñoom ndax ñooy futuru suba. beneen morceau bi di Sénégal. ma naan yéen seeni jàmbaar. yéen ak seen boroomi xam-xam yéen ak seen i këri diine bu jàmm amee di ngeen war a daan. Hmm. loolu it mu wax ci loo xam ne boo ko dajalee lépp lu ci ne njëriñ la ci société bi njariñ la ci ñun tey looloo waralaat bii ma bind. tey hmm. di préparer album bu nga xam ne incha allah bu fekkee jàmm rek am na ndax moom la ñuy ñaan. Hmm. lii jeex léegi novembre dina génn. tey douze morceaux lay génn ndax album international laa koy def. waaye benn morceau bu ci ne incha allah fa muy commencé ba fa boo ko dégloo njëriñ rek nga ci kàttanu. léegi man li ma bëggoon xam mooy comme par exemple parcours euh, Malick Coumba ba xam yow avant ngay dugg ci euh, musique bi euh, daf la fekk Sénégal walla bokk loolu moo tax nga dem def immigration nga dem Europe pour gën a yokk sa connaissance si wàllu musique bi walla bien avant ngay immigré yaa nga doon def musique fii nii au niveau si ci Galsen waaw dama lay wax leen Djidji Taf Malick Coumba Seck dafa judd ci musique hmm. parce que man xëy na fii mag ñi tey bu ma nee Mbool Seck ay suma bàyyi dañuy xam ne lu mu mën a am si aar jomb ma hmm. lu mu mën a def ci aar it jomb ma ndax kooku yàlla dafa dogal mu def ci aaru Sénégal lu bëree bëree bëri hmm. wër àdduna fu ne ak sabar ba nga ba du njaay roose siiw lu leer laa lay wax man su ma bàyyi tey mag ñi ma dégg may wax bu ñu déggee samay kàddu xam ne bu musaana dugg ci biir géwél yi lu géwél yi bari bari. Hmm. dañuy yori magnétophone di enregistré ngir am lu mu yóbbaale. Hmm. ndax yàllaa ko defoon ci moom. ma judd ci yàlla dimbali ma nag à l'âge de 13 ans. Hmm. ci la présenté première festival des jeunes créateurs. maa ko jël deuxième année maa ko jël. troisième année maa ko jël. à l'âge de 22 ans laa def émission bi gënoon difficile ci Sénégal nga xam ne pour ñu invité la fi pour nga def fa 5 minutes. Mm-hmm. problème la woon ci artiste. Mm-hmm. Malicoumba Seck a muy émission télévarieté bu Magatte Wade. Mm-hmm. def naa ko télévarieté spéciale. loolu yàgg na rek loolu moom archive la parce que boo nee euh, Magatte Wade euh, Magatte Wade rek loolu kon archive la. voilà léegi nag kon loolu DJ Taf dafa am lu muy wax. parce que Magatte Wade ci suñ biir waxtaan daf ma doon wax naan Malicoumba Seck solo lool. Mm. te même sa woy nit dama ko seetlu mu doon beneen système boo xam ne bokkul ak système bi gars yi wooyee. Mm. ma ne ko parce que woy nit du di sa maam. Mm. man gisuma ko. damaa gis nit di woy nit gis ni yaa fi def lu jar woy. ñu seet ca la nga def ñu tànn ci woy la ci mu mun a doon jariñ société bi ki ko am te mënu koo def mu jéem koo def ngir mu am woy. man foofu laay woyee nit. li mooy Malick Coumba Seck. Malick Coumba Seck daal li ma lay wax mooy yàlla dogal na maay bindal suma bopp. maay arrangeel te yàlla dogal na lu ma woy maa ko tëgg mm-hmm. benn morceau rek laa tëgg boo xam ne si yàlla dogal na Cheikh Anta Ndiaye laa ci jël invité ko ñu muy bu Wally Seck mm-hmm. mu tëgg ci ñi ci des ñëpp it ay musiciens Wally lañ mm-hmm. mooy Sénégal bi mais morceau bii moom bii nga xam ne corona bi tey ci la Sénégal yëpp daanaka découvrir Malick Mbassé lépp suma xalaat la macha allah ci wàllu arrangement wàllu musical ma ànd jeeg studio bu nga xam ne nag xale yu doy waar kooku mooy kan Talla mu ànd ak rakkam ñu naan ko Pape Ndiaye ñooñu nag doon mu xale yoo xam ne si tey xëy na au niveau national si waguñu hmm. mais nag dinaa la xale yu am talent lañ xale yoo xam ni macha allah ndax liggéey bi bu rafetee ba àdduna yépp mañ koo bàyyi xel ñoom am na def nañ ci seen loxo bu baax a hmm. baax a baax hmm. ok léegi tamit beneen question bi ma lay laaj mooy comme par exemple bi nga nekkee Sénégal tamit nga dem Europe nga immigré foofu noonu yan collaboration nga jot am foofu noonu si niveau international euh, ba xam tamit mus nga def benn album bu nga xam ne wala benn single bu nga xam ni mus nga see invité benn euh, artiste de renommée foofu noonu ci euh, Europe tamit te bëggoon naa xam tam comme par exemple bi nga nekkee Sénégal nga dem foofu noonu. Euh, kii nga fa jot am daal relation yi nga fa jot am boo xam da nga doon wane sa culture foofu wala tamit comme par exemple tamit sànq wax nga ci côté géwal te ku ni tamit ni sabar est que foofu tamit daal nga jàngale euh, art bi nga xam ni je nga ko waaw. man maa ngi euh, Europe. Hmm. sama premier voyage Angleterre laa dem. Hmm. c'était en 1995. Hmm. bi ma wàccee Angleterre. yàlla dimbali ma ci wàcc boobu Angleterre. 95. dama ni cëpp. ànd ak groupe. Mm-hmm. mais am benn groupe bu nga xam ne dañu ñëw seet si ma. Mm-hmm. bi ñu ñëwee seetaan si suma concert seen chef de groupe. yàlla dogal ñu ñëw gis ma ci groupe bi ma àndal jóge Sénégal muy démb ak tey. Mm-hmm. chef de groupe bi gis ma fa war a def tour d'Angleterre ak groupe mais moment boobu amul woon soli su génne. mu déglu ma seen concert dégg ma. ni man dafa bëgg ma toog Angleterre. mu mm. defal ma contrat ma resté joué ak ñoom tour d' mm. loolu moo ma def defal Angleterre bi ma fay des ma àndoon na groupe bu 28 personnes. Mm. ñëpp ñibbisi man ma resté fa en Angleterre doon liggéey group groupe bu naan Machango groupe. def fa jamono bi ma fa def ak ñoom ubbi fa ay classe te bi may ñibbisi Sénégal doomu géwal xam nga daa gaaw a doy waaye ku ne xam na ni moom boobu bu fekkoon que ni respecté naa pour amoon man obligé toog Angleterre. kon leneen la ñuy wax. ndax moment boobu dëkk ba bëgg nañ ma te yàlla dogal na man dëkk bi ma dëkkoon in Brighton maa ngi koy wax dëkk bi ma dëkkoon man benn sénégalais laa ko fekk maa ko ñaareel. Hmm. kooku mi ngi doon def aar di jaay ay aar man yàlla dogal ma ñëw di artiste imposé fa loo xam ne maa ko fa jëkk imposé. Hmm. daanaa jàngal ci semaine bi ay plus de 68 élèves. Hmm. doon naa ko jàngal par semaine. macha allah mu doon lu rëy ci man teel ma may succès ci dëkk ba. ba fu ma génn nit di ma bàyyi kon loolu moom laa def Angleterre. Hmm. ñibbisiwaat bi yàlla dogalee bi ma ñibbisee après 97 bi ma ñibbisee yàlla dimbali ma ma dellu groupe bi ma yóbbu woon. Hmm. ñoom ñoo ma ñoo wëlbatikuwaat jël si ma contact. Hmm. yóbbuwaat ma dëkk bu naan Portugal benn festival bu ñuy wax festival Porto. bi ma demee festival Porto. yàlla dimbali ma fa ma def fa parcours bu mag ak groupe bi ma àndaloon. Mm-hmm. wëlbatiku jóge fa dem Espagne. Mm-hmm. nekk fa ak suma benn xarit bu magu suma soxna si la ñu naan As Ndiaye. Mm-hmm. koo koy denc tey doomu Fatou Géwal Diouf. ñu ànd fa liggéey fa man ak moom liggéey bu rëy. yéen fa si scénario yu mag. ma jóge fa dugg Italie. yàlla dogal ma fekk fa groupe bu naan Ceddo. ma liggéey ak ñoom ànd ak ñoom ci scénario yu bari. Ceddo bu Sénégal wala. waaw ah, Ceddo bu Sénégal. Hmm. mais groupe boobu groupe torino la bu tudd ceddo ñoom tamit. Ah, mais ay sénégalais lañ. Hmm. bokkul la sax ceddo bi ñu xam fii. Hmm. mais ñoom tamit def naa ñoom parcours bu mag. foofu ci Italie. wër fa it daanaka Italie dëkk yu mag yu bu nuy coow bu ne ci itali wàcc naa fa ak ñoom. ñoom waa ceddo boobu. mais li mu bëggoon xam mooy comme par exemple bi nga demee Europe tamit ba xam percussion bi rek nga doon ko ne wala est-ce que yaa ngi doon jàng yeneen instrument. te est-ce que tam du loolu tamit moo la gën a ubbil ay bunt de telle sorte tamit ñu xool sa musique mu gën a euh, risque comme par exemple si wóol euh, musique te tamit la moo tax euh, bi nga nekkee Europe tamit maanaam tooga foofu nga job benn album bu nga xam ni tamit comme par exemple je crois fofu non la non gëna yombé tamit nga euh, gëné ben album bu nga xam day doon album international la motax nga bay ba ñew euh, gal sen ngay doora euh, gëné sa album Europe gëné na fa album hmm. album bi mi ngi fi hmm. xeyna programme be ko lajul mais su fekkon ka ni laj ñako avant pour hmm. album bobu dañ doon am temps ndax temps bi amul ñu man la tégal morceau yi nga xamné wayna ci espagnol morceau spécial way ci français way ci anglais way ci italien. Hmm. loolu doon expérience boo xam ne jaaxal na leen ñoom. mais bi hmm. muy ñëwee loolu laa bëgg dëppaat. Hmm. boole ko yeneen morceau fii tëgg ko ci style bu nga xam dinañ ko mën a déglu fii. looloo waral may préparé album bi ma la novembre lay génn. mais. yàlla dafa dogal Malicoumba. après Italie. groupe am nag dafa judd. muy sama carrière solo. muy étoile Baye Fall. étoile Baye Fall boobu nag moo wëlbatiku dugg Espagne wàccaat. léegi ci terrain bi wàcc ay festival international yu mag ba waral album boobu ma lay wax naan la moom la ñu muy my dreams for Africa su ma gént ci Afrique album boobu ci la nekk. Hmm. pour war ko wëlbatikuwaat fii. ok dama comprendre bu baax comme parce que album boobu nee nga da ko génne sur le plan international. léegi comme par exemple euh, bi nga ko génnee ba xam da nga koo yemale foofu rek Europe. Euh, amoo woon fii euh, comme par exemple ñu nga xam dañuy def euh, promotion wala da nga amul woon temps comme ñu bëri parce que ñu bëri da ngay gis dañuy génnee album si côté international mais teewul dañuy ñëw Sénégal bu ñu ñëwee Sénégal peut-être def tour de télé yi wala tour de rajo yi mën a def promo bi est que du yow temps boobu nga amul woon wala da nga bëggoon temps yooyu da nga consacré woon carrément Europe. waaw parce que soo gisee ma lay wax. Hmm. soo seetaanee ma njëkk a génne muy My hmm. su ma génn ci Afrique si bokk ak liñ liggéeyee fii Sénégal. Mm-hmm. single boobu moom laa njëkk a clip muy daw ci télé yi fii Sénégal. Mm-hmm. ci laa amit ay invité tele yu bari. TFM mm-hmm. 2STV feneen ak feneen fi nga xam ne jaar naa fi. ba ci ay RTV yépp single boobu moom muy My Dreams of Africa ci album boobu la bokk. mais yeneen ñaari morceaux yi nga xam comme Sénégal dañoo am feneen fu ñuy déglu.

Euh, pour ñëw imposer wu carrément pour gars yi xam euh, kan mooy euh, Malick Coumba est-ce que teg ngay stratégie est-ce que teg ngay stratégie comme yaa ngi ànd ak sa soxna est-ce que a ngi xalaat si loolu est-ce que yéen a ngi xalaat a imposer wu fii ni ndaanaan la parce que que tamit boo doonee artiste sénégalais nga def Europe surtout lu fa dóor ay concert ak yeneen ak yeneen kon mën nañu wax que ni background bi mi ngi fi de telle sorte tamit war ngaa mën a imposé wu fii nii euh, ci Galsen yan méthode ngeen di euh, teg ni instant bi yow ak euh, sa soxna pour mën a imposé wu fii. waaw bi ñuy teg li ci ëpp important actuellement mu mën la ko wax mooy. li nga mm-hmm. xam ne sumboon nañu ko te yàlla dogal lii dugg fi. Mm-hmm. te loolu yàlla fi yàlla jëlee lii. Mm-hmm. pour mu mën a ñëw muy festival bu nga xam ni si. étoile Baye Fall ngi koy préparé novembre la war a doon ci lañ bëgg a présenté suñu album bi. festival boobu di Kayor et di deux jours yu njëkk yi le 12 la le 13 Louga la war a doon. 14 15 16 ngaay gii lañ koy defee. dina mm. am ay groupe international yu jóge ba Europe di ñëw ci festival boobu. Mm. dina am it luy groupe te am solo fii ci Afrique. Mm. fii ci sa tund Kayor. dinañ ko ci boole. luy groupe it te am solo ci Louga. dinañ ko ci boole boole ko ay historiens yi nga xam ne ñoo xam histoire Kayor. ak histoire Njàmbur. pour mun delloo si xale ndax concept festival boobu mi ngi fii. ko ndox mm. mm. li ko waral mooy Malick ba Seck dafa gis ni njàmbur njàmbur mm. ak kayor kayor dafa am yëg-yëg bu ñu amoon man nag sama yaay di kayor sama baay di njàmbur yëg-yëg boobu mooy ku ci mus a gis sa bopp fëgg sa dënn ni man kayor kayor laa fëgg sa dënn ni kayor kayor laa nag dafa am lu mu leen gë lu mu gëm-gëm bu mu defoon ci ñoom am jom ju defoon ci ñoom am ngor gu defoon ci ñoom am lu ñu bëgg te lu ñu mus a visé bëgg fa yàgg loolu nag dama gis ni tey valeur yooyu xale yi tey dañ ko ñàkk. Hmm. Malick Coumba Seck nag concept festival bi mooy jëlaat culture. Hmm. delloosi ko pour mun a jël ñi nga xam ne ñooy historiens yi. Hmm. ñu indiwaat xale yi delloo loolu ci ñoom. ndax bu nekkee ci ñoom rek jomam ngor ak fulla ak fayda te bu dellusee daanu dem fi ñu ko. mais boo xoolee comme par exemple musique bi fi mu toll yaa ngi ànd ak euh, sa soxna est que moom mi ngi gis euh, comme peut-être groupement yi wala yeneen ak yeneen euh, fi mu dëkk muy Njàmbur di Louga. ak euh, ngaay est-ce que tamit yaa ngi collaboré ak ay nit yi nga xam ne tamit ñu gën a xam euh, euh, kii groupe bi est-ce que am na ñooy collaboré tamit wala tam yan stratégie ngeen teg. waa bi moom daanaka suñu mbokk yépp xam nañ ko ñi nga xam ne tamit xam nañ ñu tamit xam nañ groupe bi. Mm-hmm. ndax comme ni mu ko waxee comme ni ko Malick waxee. Mm-hmm. groupe bi doon na jouer Espagne ay concert yu bari. Mm-hmm. am na ay concert yu daan am Espagne festival yi daan nañ ci jouer daan nañ ci présenté wu. kon ñu nekk Europe di suñu mbokk di suñu ay mbokk ñoom xam nañ groupe bi. Hmm. mooy étoile des Baye Fall. Hmm. waaw ñi nga xamante ne nag ñoo dëkk Louga tamit di ay ndaanaan di suñu ay mbokkit ak ñeneen ak ñeneen suñuy fans. Hmm. xam nañ groupe bi bu baax a baax. waaw comme ni ko waxee rek moom laay dëggal. parce que moom nit la koo xamante ni macha allah karuma ko. am na talant am na intelligent. dem comme ni mu ko waxee day xëy rek def dara bind. wala mun ma am naa inspiration. maa ngi dem studio su demee day teg lépp man damay ñëw rek su ma ñëwee man it yàlla dimbali ba ma may ma benn talent boo xam ni mm. su ma yegsee rek bu ma nee wayal fii mm. moom du ci sonn man damay mm. daal di way tëri moom moo fay nekk di nelaw ak di arrangé ke def yëpp léegi complicité boobu noonu bëgg naa comme par exemple nii rek ni ngeen toogee nii si sama plateau ngeen improviser ngeen improviser euh, dara ngeen improviser nii waaw ngeen improviser nii dara. Faria isi gaga Talla Bakar Koddu Ndiaye Alaaji Demba Dieye Ndiaye la ñuy sa baay waaye yaay Koddu Sàmb la ñuy wooyee sa yaay jigéenu màgget Ndiaye yaay jigéenu Badara Ndiaye Papa Ndiaye As Ndiaye ak Maas Ndiaye jigéenu Mamor Ndiaye Seynabu Njaay maam Cheikh Fall coow li coow li coow li coow li coow li Cheikh borom digal Fall may sa Kumba Fall daa bay maam Seynabu Njaay biran jabeek nga jàngaay kon njëkk bàyyu lal faal maam far bu yaasin daaw ma jëmbul cheikh ndigal coow li coow li mooma ma mm, daal jëre li may ñaan jëre li may ñaan man taaw li may ñaan yàlla bàyyi ma ak ci dunyaa man daal jërë lii lay ñaan kur di gëbaayub lal faal maam far ba yaasin daaw ma jëmbul gëbaayub lal faal maa far ba yaasin ma jëgbul Cheikh Ndigal coow li coow li mooma Cheikh Ndigal Fall may Ndigal Fall kooku Cheikh Ibrahima maam seexu ndigal diggante almeeri jumaa ji sa maama ko bay ay segg fa daan bëf segg ak seex ndigal faal làmp faal ngay njëkk seen waaye boo génnee tuuba làmp ngay njëkk seen bay góor la wooye baay ba cheikh Moodu Moustapha Fall maam ja Cheikh Fall sa maam ndigal coow li coow li mooma waay seen ndigal faal coow li coow li yow faal man de li may ñaan faal jur sa turandoo yi faal man daal loolu laay ñaan. ok dafa leer dafa leer dafa leer euh, moom boo xoolee comme par exemple ton bi muy wooyee euh, kii la may jox euh, Kiné Lam Kiné Lam la may jox Kiné Lam Maam Bamba moom la may jox mais gis naa tamit complicité bi nga xam ni am na yéen ñaar seen diggante noonu lay demee mais comme par exemple comme album bi nga xam ni yaa ngi koy waaj a génne. est-ce que mën nañ euh, dem ba gis comme par exemple moom euh, ci biir mu am ay partition yu nga xam ni euh, da koy woy carrément que comme dio dio bi na am habitude est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que koy prévoir si biir. am na morceau bu ñu woy man ak moom morceau boobu Louga loo la tudd. Hmm. morceau boobu moom moo dëbbee man ma aw. Hmm. waaye diwoo la tudd. Hmm. diwoo la foofu nag li nuru li ma arrangé morceau bi mooy. mom da fay wax kuy malikum ba sek man may wax kuy marem mm. nyaay mu don morso bu dugg ci xolu nit ñi neena la mm. émission bi xatna tay de mais di jëtaf bu nu waté dina metti trop pour ñu mm. leer ndax morso yoy yeb bu ba allo allo señ bi ah, ah, di jëtaaf maa ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu yow tam bu baax ñi ngi lay nuyu bu baax man la may babu waaw waaw waaw ñi ngi lay ñi ngi lay dégg ñi ngi lay dégg ñu ngi lay jaajëfal baax di julli sayyidina Muhammad di sab Serigne Touba. Mm-hmm. di ñaan di nga xam ni moom la Serigne Mountakha digle ci àdduna bi digale ko Sénégal bii. fu mm-hmm. ne rafet nga ni njort ni ba am ñaar fukki fan feebar bi jeex fi tàkk. Mm-hmm. ndaxte moom maamama demoon géej. waaye ñu dem ci tey jii sëñ Babacar Mansour ñaan yu rëy yi mu def ci réew mi. loolu feebar bi fu ne na sa xel dal. Mm-hmm. waaye tey da ngaa invité sama sang. Mm-hmm. ki nga xam ni dem na Portugal. Mm-hmm. jóge fa dem Espagne. jóge fa wàcc Italie. mais taxul mu fàtte ay bokkam. tey nag duma ko tagg Tafa. jabaram géeju lay wax. kor la. yaa la. sa din loolu mu am a ñun nit ñi dinañ ko dégg. ndax lépp lu mu yor. bàyyi na koog te lu malik yor mu ne ko jox ko say bokk hmm. loolu moo tax sama yaram daw hmm. muy ndaanaan nag hmm. malik nag loolu mu la ku juddoo sim tàgg boo naawul jaaxal say bokk dafa judd ci askan kër bàyyam artiste bi gën a rëy ci àdduna bi suuf mën na lekk nit mais jóg fi la koy baax moom artiste euh, ay ci yaayam fii ci ngaay jàng na ngaay di ni jaayam Serigne moo njaay bi ni jaayam hmm. kon kooku bu wooyee àdduna dinañ ko tëj hmm. ba pare nag muy taalibe ba jeex tàkk boo hmm. sob du ci téye dara ma toog ak ñu jaayam nii saa ñebe sama seexlaam sama kër ñëpp a ngi koy dégg sama yaram dafa daw bàjjana mi ngi toog ak sa mboj moo moo ki bàyyam ñoo bokk ndey ak bàyyi Malick koo xam ni taalu gën a waaye ñoo ba soxla ñoo bëgg mu ñëw fii mu ñibbi si. ndax na muy teralee bitim réew. bu ñëwee fii tey lii mu way ci corona bi. defar na lu rëy rëy ci àdduna bi. defar na lu rëy rëy fii ci Afrique. mais defar na lu rëy rëy fii Sénégal. mais defar na lu rëy fii ci Kajoor. noonu koy ñaanal daal. aw yoonam yàlla na egg. waaw léegi léegi yow waaw léegi hmm. léegi sunu sunu xarit nga. Hmm. sunu waay nga. Hmm. di artiste. di baax. Adja nag kenn dootu ko gërëm. Mm. dañ koy bàyyi yàlla rek ndax lii nu ko dénk ci rajo bi. Mm. koy doxal te bëggul kenn mer. fu mm. juum wala ni la juum nga. Adja nit la koo xam ne daal. ñoo ngi ñaan ak sàkku saanam. gin koy joxe muy jëm këram. ci barke yàlla ak yonent bi. Afa jërëjëf ngeen baal naa. waaw léegi yow yow waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax mais euh, moom mi ngi nii si plateau bu fekkente ne woon am na benn question bu nga xam ni euh, da nga koy posé. Euh, wala tamit lu nga xam ni euh, ba nga ko euh, li nga xam danga koy yokk ci carrière yow lan nga koy wax allo. ok. dafa mel ni loolu dagg na waaye li ma bëgg wax mooy. Hmm. kooku dugg mbay baabu géey lañ koy wax. Hmm. dama la wax ni bu ne ngéwal xel yépp dem ci kooku di mbay baabu géy hmm. ndax yàlla dogal na ku ne xam na rôle ci biir ngéwal. mu bëgg yow lool bëgg aw askanam lool moom tamit di ci def lu baax heure bu yeewoo. Hmm. te heure bu ay bokkam wootee mooy njëkk a teew moom mbay baabu. mbay yàlla dogal na ñooñu mu toogal muy saañe bi mbuub muy Cheikh Lam muy képp koo xam ne doomu ngéwal nga parce que ku lim da ngay juum hmm. mais man yàllaa dogal kenn ku ci ne ngéwal nga jox ma sa xol. loolu nag yàlla li tax yàlla defal ma ko ci sumay bokk man du lu ma liggéey samay bokk ma bëggal seen bopp. Hmm. ndax li preuve bi tey mooy ñoom ñoo yëkkati président ASC Gueweul. Hmm. teg ko sama loxo te ku ne xam na ni Malicoumba Seck du def def bu rëy moom lañ ko joxe ASC Gueweul. Hmm. dañ ko jox ngir cofeel gu Gueweul am ci moom. dañ ko jox ngir ay bokk ma ko bëgg looloo waral loolu. kon ba tax na maa ngi gërëm dépp bépp doomu Gueweul. ku man di doon. Ah, jël di gërëm sama yaay. Assa Ndiaye. sama yaay maa ngi koy gërëm di gërëm sama yaay Assou Ndiaye ndax it nag bu bëy euh, li ñu koy waxee euh, bu lëg lekkee alam na ko gërëmi coy hmm. te man Malicoumba ba Seck euh, suma baay baax na loolu kenn werante wu ko waaye suma yaay baax na it kenn werante wu ko hmm. mu yaay ju mat yaay yaay ji nga xam ne yaay ju dalal xel yaay ji nga xam ne yaay ju ma toppatoo yaay ji nga xam ne yaay ju ma jàppale te mosuma sonal ci dara hmm. suma yaay moo tax ak nu mu mënti demee lu coow li bari bari yoon la ma beral ko nuyoo di nuyu sama nijaay jàng na njaay di nuyu aadama cuum sama hmm. nijaay ak askanu ngéwal gépp ndax ku lim juum bàyyi mu kenn lan day laa ñëpp maa leen nuyu mais hmm. li am ba des daal mooy ñi ngi ñi ngi bëgg suñuy bokk daal di kontaan hmm. ok mais comme ni mu ko waxee tamit euh, nee na nee na tamit konk da nga génnoon dem bitim réew ak euh, yooyu noonu léegi euh, nga ñëw nga euh, toog fii ci dëkk bi pour nga mën a imposer wu léegi loolu nan la fa demee parce que tamit moom man mën naa seede ay quelques kii yu nga xam ni je me rappelle Zalo Pro doon na organiser benn kii daje woon nañ foofu noonu gis naa que ni yaa ngi jéem a takk ay initiative yi nga xam ni pour nga mën a imposer wu ci dëkk bi tamit pour nit ñi gën laa découvrir loolu loolu nan nga koy doxalee. waaw loolu li ma koy doxalee mooy di jëtaaf man dama wax ni actuellement. Hmm. Malick Mbasek dootul Malick Mbasek européen yi. Hmm. Malick Mbasek li mu doon jox Europe pour moom jox na ko bàyyi. Hmm. li ko dese mooy lu mu jox si waat à waa réew lu ma jox si waat sama waa dëkk ngaay lu ma jox si waat sama waa dëkk Louga loolu moo tax ma song festival bu ma xam ne si mooy comme li ma doon wax sax pour won ni leen Malick Masek mi ngi revenir di dellu si waat ci këram pour bëgg leen won di ko booleeg album douze morceaux pour bëgg leen won ni leen Malick Masek la mu imposé woon fële ba ñu nangul ko ko loolu day dellu si waat fii ngir xam na ni fële la dañ faa tukki waaye fii la ñu dëkk te comme fee ñu tukki fa la ñu mën a wone lu gis fii ñu dëkk rawatina nag wax dëgg yàlla lenn rek laa la mën a wax di mm. lu leer mooy xawma ñi nga xam ne artistes yi xamul Malick Mbassé mm. waaye ñi ko xam ñu koy bàyyi xel mm. te yàlla dogal na heure bu Malick Mbassé duggee ci seen biir daanu ko jox loxo daanu xam mooy kan parce que xam nañ ni am na lu mu fi bàyyi woon bala mu fi ok léegi dama bëggoon tam ñu ñëw tuuti si album bi album bi nan la fa demee ba xam instant bi euh, kii dugal nga ko si studio wala ba léegi yaa ngi dem di dugal wala ba xam bi na nga nekk di xalaat si stratégie. maa ngi ci huitième morceau. Hmm. li ma la mën a wax. album bi it su ma neexoon tey mën na doon quarante hmm. la laaj douze parce que dañ ko bëgg hmm. ma di la wax ne maa ngi liggéey ci beat bu ne. reggae R&B lépp maa ngi siy liggéey. loolu it moo nekkoon ci album international bi ñu njëkk a génnewaat. dinañ ko dëpp nag indi afro bu nga xam duñ mbalax pire. ñun hmm. duñ ko def man gisuma ma lappi hmm. mais dinaa leen andil loo xam ne si hmm. dina xam ne Sénégal lu bees fay inshallah ok noonu lay demee comme ni mu leen ko euh, wax woon si njëlbeen bi euh, Malick moo nekk euh, sama invité ci couleur urbaine tax ma dalal ko lu tax ma gën koo dalal mooy dafa génn benn euh, single bu bees tàq single bi mi ngi ko tuddee euh, corona euh, virus justement pour gën a sensibiliser population bi si feebar boobu nga xam ne mi ngi lëmbee jamono mi ngi rey ñu bëri looloo tax ci biir son bi mi ngi wax que ñu gën a booloo ñoo fait la force sénégalais yi ñëpp ñëpp nañ booloo ñu xam que ni feebar boobu noonu du foo mi ngi rey mi ngi rey parce bu fekkente ne yaa ngi xool actualité l'Europe feneen ak feneen Chine tout récemment dañoo booloo nekk euh, benn parce que tamit Chine puissance mondiale la ñoom bu demee ba euh, pour euh, xeex feebar bi tax depuis loor ñu ngi noonu gën nañu am doole pour xeex kii bi kon bu naan Afrique Afrique bon du amuñu doole noonu mais nag nañ gën a booloo ñuy déglu conseils yi tamit kii bi tamit dama bëggoon nga gën ko leeral ñi nga xam ne instant bi ñu ngi déglu couleur urbaine bu jaree sax ngeen euh, talal morceau bi tamit ngeen woy ko nit ñi gën a déglu euh, kii message yi nga xam ne tamit euh, yéen a koy jàllale ak yàlla léegi damay joxaat kii son bi ñu ñu kii ko ñoom ñu playback ci kawam ah, waaw aca waaw li muy ndax fagaru leen dafa doon loo xam ne si. Mm. ci fagaru rek moo nu tax a mën a mucc. Mm. ndax boo dégloo ci biir morso bi maa moo maa ngi naan fagaru leen fagaru naa. Mm. Euh, te ndax euh, ndax euh, feebar bi ñu doon xa bi ñu doon coow ci àdduna. dugg na fii ci suñum réew. waaye nag dugg na fi waaye bu ñu booloo mu génn fi. te war nañu booloo ngir booloo rek moo nu mën a dooleel. pour feebar bi génn fi. wëlbatiku it naan président woote na ngir mu génn fii. Mm. ba kilifa diine yeeg yu aada yi ñëpp wuy si nag. Mm. ñun nag war nañu wuy si ñun ñi nga xam ne ñooy population bi. Mm. suñu wuy si nag mooy topp ndigal yi nga xam ne si ñi ko bëgg randal. moom la ñu joxe. ndigal yi nag mooy daw dajaloo bi. ndigal yi nag mooy daw xew yi. ndigal yi nag mooy moytoo di joxe loxo. ndigal yi nag mooy tey raxasu xëcc set ci suñu biir set nag dafay war a nekk saabu ne. mais rawatina moment bii nga xam ne si yàlla dogal na jàngoro ji dugg ci àdduna bi lëmbaaje àdduna bi yëpp. ndax jàngoro joo xam ne si ku xam ku France ak potentiel maanaam dooleem. Hmm. xam États-Unis New euh, États-Unis ak dooleem. Hmm. xam fi nga xam ni mooy Italie ak dooleem Espagne ak dooleem. Hmm. ñooñu dugg feebar boobu dugg fa tey ba fat leen ñoom ñëpp ci seen i biir kër. tey daanaka boo demee Europe supermarché lañ lay wax pharmacie mooy la fa ubbi. mais est-ce que tamit du si mentalité léegi parce que léegi da ngay gis que ni léegi lu ñëw. Sénégal laa wax lépp lu ñëw léegi Sénégal dañ koy jël euh, ñu koy ay bon maanaam léegi lépp lu ñëw dañ koy jël ay caaxaan maanaam léegi fo euh, bi moo ba jël suñu mentalité bi de telle sorte que des fois da ngay wax di sérieux alors que xam nañ que ni coronavirus bi c'est du sérieux mi ngi rey yàlla moo dimbali ba peut-être fii bon peut-être mën nañ wax que ni cas yi bëriwul noonu mais da comme ni nga ko waxee da ngay dem Europe wala feneen ak feneen mi ngi rey bu baax waaw mi ngi rey bu baax tamit looloo waral di ji tax ma wax ci biir wayu naan ñu moytu amul te bokk xeex ko ndax hmm. mu génn fii hmm. ndax am na ñoo xam ne man li ma gën a yéem mooy jëluñu ko sérieux hmm. te loolu mooy li nga xam ne moo daloon Italie. Mm. ci bi mu fay débuté di fa dugg ba yóbbu leen fii mu leen yóbbu tey jii muy crise bu mag. Mm. tey jii ku ne xam na doole Italie. Mm. États-Unis looloo ko daloon. dañ ko xeeboon négliger ko. tey ji mu yéem leen ndegam ñooñu la mën a yéem. loolu loolu loolu bu ñu dalee ñun suñu réew mi ñaanu ma ko yàlla ñaanu ma ko yàlla ñaanu ma ko yàlla mais bu ñu dalee bu ñu dalee suñu réew mi nga xam que ni instant bi am na ñu nga xam ni ñu ngi doon commencé euh, di liggéey mm-hmm. yeneen ak yeneen bi tout récemment mu génn pour ñu def couvre couvre feu nit ñi tamit huit heures mu fekk leen seen biir kër mais gis nañ que ni tamit euh, tout tamit ñu ngi doon seetaan télé euh, côté Médina foofu noonu am nay xale yi nga xam dañ doon génn mooy comme la doon expliquer rek mentalité yi mentalité yi affaire dañ ko jëlee foofu alors que euh, du foofu comme couvre feu bi dañu dañu bëgg juste pour protéger sénégalais yi looloo tax ñu leen wax pour ñu toog seen kër. Uh-huh. Mm. DJ Taf nañu delluwaat parce que ñooñu ak seeni i benn kaas benn nit. Mm-hmm. benn kuddu benn nit. Mm-hmm. benn bool benn nit. benn lal benn nit. Mm-hmm. ñun nag loolu lépp dañ koy bokk. nga dugg ci kër quinze personnes ci benn bool maara deyim si ñooñu mu yéem leen tey. bu duggee ci ñun maara mooy àdduna tukki na maara deyim si. kon yàlla na ñu yàlla musal feebar boobu. jeex takk ñu respecte normes yi nga xam ne joxe nañ ko président joxe ko. Mm. parce que joxe ko parce que ñun nañ teeg suñu kër. ba dara yënguwul kenn ku nekk lu la neex nekk ca. Mm. mais tey li yëngu dafa jaaxal àdduna. Mm. te ba léegi amaguñu lu lii mën na ko faj. kon li ñu gis mooy na kenn ku nekk toog sa kër. kenn ku nekk toog sa kër nag moo ciy garab pour l'instant. parce que tamit yaa ngi woote tamit euh, doole euh, tamit gis nañ tout récemment tamit élection yi jàll na. Mm-hmm. amoon na opposition yeneen ak yeneen. Mm-hmm. mais booloo boobu tax na ñi nekkoon si opposition beeg yooyu yëpp ñëw nañ. Mm-hmm. Euh, fekk si président bi. pour jàpp parce que tamit du président bi rek. mën nañu wax que ni feebar bi Sénégal yëpp lay affecté. Sénégal yëpp lay affecté kon ku si nekk da nga war bàyyi maanaam li nga li ñu xam que ni intérêt intérêt bi. moo a jóg tamit gis nañ ko si yaa ngi woote bennoo tamit parce que comme ni nga ko waxee bennoo boobu boobu mooy tax ñu am euh, doole. parce que soo gisee DJ dox may wax loolu mooy. Hmm. feebar bi xamul buur xamul la hmm. soo dégloo tey jii ci yeneeni réew ñi ngi wax naan première ministre Angleterre bi moom moo ko dal. Hmm. ngi wax naan prince Carl ah moom moo ko dal. muy lu yéeme. loo xam ne ndegam ñooñu la bawul waxuma la ak ñun ñii. léegi nag feebar boobu buy tas di dox di dem bay dugg Afrique. tey jii kaa yi nu am moom li ñu war a def mooy mobiliser wu. topp li nga xam ne mooy digal yi. loolu nag topp ko du question dañu topp président opposition bi it wuy si président wax naa ko ci morceau bi ndax bu ma nee kilifa diine yi ak kilifa aada yi wuy si nañ ko bi mu wootee. loolu mooy wuy si ba. wuy si bi nag mooy ñun ci suñu jëmmi bopp nag ñi nga xam ne si ñooy askan wi. ñoo war a gën a njëkk a wuy si ñëpp. respecté normes yooyu ndax lii dafa sérieux lii moo dugg lu ne jaar na fi ci àdduna bi mais cas bu mel nii musul am ci àdduna li ko mën a nag jimbalinu pour ñu xeex ko mu génn fi mooy suñu parce que boo xoolee boo xoolee boo xoolee bu ñu demee bay interdire dajaloo bi tamit parce que ah. tamit ni ku nekk sa diine nga bu demee tamit ba xam ko ni euh, loolu noonu tamit euh, euh, day indi jàngoro bi ñu ñu wax ni ñi tamit ñu ñu xaw a kii ñu xam ko ni kon c'est du sérieux parce que mm. je crois bu fekkante noonu ay Euh, kii du fekk nguur gi parce que xam na que ni mënoon mënu woon jekk-jekk rek interdire loolu mais dafa masla ba ñu ba kilifa dina xam que ni lii nii euh, tamit bu nu bu nu moytuwul dajaloo bi rek mën na indi euh, gàllankoor mhm. Mhm. loolu tax tam ñu ñu ñu ñu ñuy wax nit ñi tam ku si nekk tok sa kër parce que je crois que bo toge sa kër mhm. do and ak febar bi tamit dina lu bari dina wañeku dal loolu mooy di jëtaf li nga xam ni wax naa ko ni école yi tëj nañ ci biir woy wi mm. Mm. waaye xale yi mën nañu des ci kër gi mm. ndax feebar bi mi ngi ci mbedd mi jaaxal na na dunya te loolu dafa nekk feebar bi ci mbedd mi la nekk de te lu jaaxal àdduna la ndax boo gisee li nga xam ni si tey ñi ngi dee kenn mënula wax lim boobu nu mu toy te lim boobu noonu yàlla nañ ci yàlla musal mu wàññi ko feebar bi jóg fi mm-hmm. mais feebar bii li ko mën a xeex mooy respecter normes yi mm-hmm. normes yi mooy na nit ñi toog seeni biir kër mm-hmm. na nit ñi wàññ nuyoo na nit ñi wàññi dajaloo na nit ñi di raxasu nañu xëcc set nañu jël xale yi teg ci biir kër yi moytu lu jaxasoo yi ndax vraiment ku amoon li la gënal bu fi lii lépp amut woon. Mm. huit bu jotee da ngay génn doxi sa soxla waaye mm. bu ne huit heures bu jotee na ku nekk dugg sa kër. Mm. loolu du pour ñoom. pour aar arkan wi la. buñ ko jàppee noonu rek lépp day sedd. bu ko defee xale yooyu nga xam ne ñu ngi ci mbedd mi bañ a respecté normaux yooyu ñi nga xam ne ñooy seen i waajurut. ñu bàyyi leen xel fexe naxanteeg ñoom dig leen ci kër gi. ndax loolu mooy sunu njariñ mooy njariñal àdduna. ok muy ay message fort yi nga xam euh, transmettre na askan wi euh, tamit dama bëggoon tam nga wax si tuuti tamit euh, sa mbokk jigéen yi nga xam instant bi ngi déglu à travers le monde à travers le monde message nga di parce que ban message nga waaw merci DJ waa li may leen di lancer rek mooy comme li sëñ bi wax. Hmm. nga wax ko maanaam àdduna sépp wax ko. Hmm. ndax loo xam ni daa dugg ci monde bi. monde entier jaaxal ñépp. Hmm. ku ci ne di ci jël solution. solution bi rek mooy li ñu njiitu réew mi ak kilifa yi di ñu digal. ñu topp loolu. waa ndax. Euh, loo xam ne sii la daal ñëw na daal. di hmm. balaa boo xam ne kenn xamul fi ñu toll nii kenn ku ci ne fi mu ne tiit nga. Hmm. ànd nga ak nervioso te it ñaan rek nga man hmm. waaye nag du tee lan lay digal pour nga mën cee mucc boo ko defee yàlla mën na la cee musal. muy toog ci kër yi jigéen ñi tamit ñu jéem a jàpp seeni gone jàpp seeni doom. jàpp seeni borom kër ñu toog ci kër gi ah. bu dafa yàlla daal defe naa loolu bu ñu ko defee mën nañ cee am solution. Hmm. waa leneen li si des it ah, bu ñu tàggoogul it bëgg naa nuyu sama goro. Hmm. Ah, mu yaayu Malick ndax ah, moom tamit ku ma bëgg la. sama maman Astou Ndiaye maa ngi hmm. koy bëggee di ko di ko wax ni ko maman loo ma bëgg li ma la bëgg moo ko raw ndax ba ma àndeek maalik ba léegi moom dafa mel ne jurul Malick mën la jur comme ni ko Malick di waxee sama yaay maa ngi moom danoo weccoo yaay. Hmm. waaw moom kodda yaayam waaye man asooy sama yaay. Hmm. waa di sant sama njëkk yi. Hmm. sama goro yi sama impaañ mati moom it euh, fas Seck ñëpp maa leen di nuyu Kulim Dioum. borom ceeb yu neex bàyyiwuma kenn waa. ok léegi. <laughs> ok noonu lay euh, demee léegi le mot de la fin parce que tamit euh, temps bi daf ñoo dab euh, ñu collé kii ñu collecteur ñi nga xam ne bëgg nañ jot single bi tamit comme que sensibilisation la tamit ñi nga xam ne bëgg nañ ko jot nan la ñuy def pour jot ak képp ku nga xam tam bëgg na jot Malicoumba tamit nan lay def tamit parce que temps moo ñu xoj. waaw temps bi moo ñu xoj single bi ku ko bëgg jot boo duggee YouTube. Hmm. boo defee Malicoumba Seck étoile hmm. Baye Fall. Hmm. coronavirus di nga ko gis. loolu mooy single bi ku ko bëgg rek di nga ko gis. lu ci des mooy. Euh, Malicoumba Seck am na numéro étoile Baye Fall 77. 636 92 30 numéro boobu it képp ku ci wootee te bëgg single bi dinañ la ko jox. Mm. incha allah ndax pour réew mi rek la. Mm. defuñu ko pour lenn ludul pour réew mi jagale ko réew mi. Mm. leneen li ci des it mooy yow ñu lay gërëm di ci taf. Euh, ngërëm lu amul fu mu yam di gërëm it borom kër gi. nga xam ne si moom tamit euh, lépp moom la. yow mii nga xam ni nag am nga yëg-yëg bu toy na si ñun bàyyi nu xel ba invité nu ci sa biir émission. Mm-hmm. ñu ngi lay gërëm bu baax di gërëm sa waar régie di gërëm ñi nga xam ne si ñëpp ñu ngi nuy déglu. Mm-hmm. di gërëm képp kuy doomu ngaay wala ngay doomu kayor. Mm-hmm. bu nu fa jógee di gërëm Sénégal Afrique bàyyiwuñu kenn. waaye suma moo bu mujj daal mooy. norme yi nga xam ne si yàlla dogal na ñu jël ko teg ko ci jàngoro ji. nañ ko fexee respecté. parce que jàngoro ji jàngoro ju sérieux la. jàngoro ji jàngoro ju tiital àdduna la war a tiital kenn ku nekk ñu jël li nga xam ni mooy norme yi ñu jël ko respecté ko pour mën a dàq jàngoro ji ba ma lépp mën a delluwaat fa mu nekkoon kenn ku nekk delluwaat ci sa activité ndax loolu rek moo nu mën a jariñ tey mm. lii nag mun nañ ko xeeb ku ko xeeb rek mun na nañu yéem mm. mais suñ bokkee ñun ñépp xeex ko léegi mu génn fi incha allah lépp dellu fi mu nekkoon. Mm. te am nañ ci yaakaar ndax am nañ ñu baax ñi. Mm. am nañ yàlla ñun am yonanti bi. Mm. waaye am nañ sëñ Tuubaa Cheikh Ibra Alaaji Malick Limaamu Bukkunta Njaasaan rawaat ngoom ak ñeneen ak ñeneen ñu mu mënti lim. am Cheikh Saad bu gànnaar ñooñu nag ku leen am fii ci mim réew. boo songee dara boole ko volonté ak respecté li ñu war a respecté déglu ndigalal ki nga xam ne mooy borom réew mi. Mm. ñu ñun ñëpp ñu topp ci parce que fi mu toll ni opposition amatul kii laa wala kee laa xam am. Mm. lii ñëw na. lu sérieux la ñun ñëpp nañ ànd doon benn bloc xeex ko mu génn fii lii rek mooy wax. Hmm, ñu koy jaajëfal tamit si professionnalisme parce que tamit euh, des fois da ngay invité ay nga xam ni euh, da nga leen wax heure duñ ñëw heure te dem duñ respecté heure wala tam des fois nga kale ay invité yi nga xam ni euh, duñ ñëw ñu koy jaajëfal di ko remercier bu baax tamit si disponibilité am tamit noonu lay demee ak couleur urbaine may fàttali ñi nga xam ni ñoo sama auditeur auditrice couleur urbaine yaa de 15 heures comme ni ma leen ko waxee tamit wax na tamit képp ku nga xam ne bëgg nga euh, jot single bi fi ngay jaar da ngay dem si euh, page YouTube am nga tàppee Malick Coumba tamit euh, single ba mi ngi foofu noonu ak lépp lu nga xam ne jot na ko génn ci ñu koy jaajëfal bu baax noonu lay demee di di bëgg képp ku nga xam ne yaa ngi doon déglu couleur urbaine ak Mame Mentef connection out léegi nag damay tagu ak yéen ma may leen euh, single bu bees boobu noonu mooy wax ngeen déglu ko ngeen déglu ko tamit restez chez vous restez chez vous corona bi du fo mi ngi euh, rey euh, may wax ngeen déglu ko ma leen di jaajëfal ma leen la wax ba beneen incha allah. kilifa diine kilifa